Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, de documentaires, des publi-reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui met leur professionnalisme à votre service. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi si foog di seetaan Salam Vision maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay rek di leen ne ñoo ngi fii ni nga xamante ne mooy Kaolack si gàmmuwaat bi fas yéene leen woon nan la waa Kaolack di. dundee gàmmuwaat bi nan nan lañ koy defee ak tamit lendemain gàmmuwaat bi mu tombé vendredi jour vendredi nan lañ koy defee fii nii nga xamante ni mooy euh, jumaa Medina Baye ñu fas yéene leen woon lépp loo xamante ne dafa nar a xew ci jour gàmmuwaat bi ak lendemain gàmmuwaat bi duñ ci bàyyi dara incha allah rabi. من علينا دوام العهد والبلد والحب بالحسن الحنوف من كملا من علينا دوام العهد والمدد والحب بالحسن الحنوف يوم الكملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم yéen waa Salam Vision ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen tàttagal di leen dalal tey nag ñu ñëw fii ñu Kaolack Kaolack bi ñu egsee Kaolack yooyu ba Saam fekk fi ñaari borom xam-xam ñu fi fekk tonton Ousseynou ak eh, tonton Aliou tonton ñu ngi lay ziar. tey tey ñu delloo ziar bu baax yàlla noonu ziar. waaw euh, ñun ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, ñu ngi nuyu waa àdduna yëpp à travers euh, Salam TV di kontaan bu baax ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii ci. Medina Baye ci période bi nga xam ne nii période bu màgg la muy juddu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu léppam dundam yëpp da koo joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëccëgam yëpp ak guddeem yëpp bëccëgi gàmmu ak guddi gàmmu moom ci gën a doon ba ñu dëkkoon ak moom gën koo jege xamoon nañ ci moom loolu lépp lu mu daan maye bëccëgi gàmmu ak guddi gàmmu da koy yokk lépp lu mu daan joxe bëccëgi gàmmu ak guddi gàmmu da koy yokk lépp lu mu daan euh, itteewoo bu gàmmu teroo day bàyyi lépp jublu ci gàmmu ku mënatu ci àdduna weeru gàmmu bu teroo day nekk kon ci ayaam yooyu lañ nekk muy bis yooyu nga xam ne ni màggam ñu ngi tolloog màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënee màgg lépp noonu la bisam yi gënee màgg bis lépp kon bu ngeen déplacé woo jógee ba Dakar ñëw fii ci Medina Baye pour bokk ci ñuy couvrir ñiy wane taaru yonent bi sallallahu alayhi wa dañ leen di gërëm bu baax a baax Cheikh Ibrahima Niass moom nag moo woote woon fii Medina Baye euh, di di màggal bi di yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bi mu ko wootee dafa am ñoo xam ne nii ay mag ñoo xam ne ay ponkal yoo xam ne ñoo ko uy si woon ba woote bi tey ñu yeggale ko fu nekk ci àdduna bi bokk na si mag ñooñu nag ci ñu mën naa dégg muy Mawlana Cheikh Hassan nga xam ne si lañ war a waxtaanee ah, nga xam ne ni Seydi Ali Harazim mi ngi nii doomam nekk suñu sëriñ moo ci war a wax waaye balaa loolu rek dama ciy cof tuuti rek Cerno ah, nit la woon koo xam ne nii ah, léppam dafa matoon ci zahir ci xam-xamu zahir ci ci lu ne jàng da koo jàngoon ci xam-xamu lasraar balaa mu ñëw ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaye nag bi nga xamee ne am na lu ko manqué ñu xam-xamu yàlla sëriñam ci zahir moo ko tegtal mu ñëw ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu pour mën a yokk xam-xamu baatinam mu xam-xamu maarifatu billaahi jërëjëf mm. tonton ngi lay jaajëfal ci mm. eh, mm. euh, ci say wax kilifa bu am solo mm-hmm. ci pays mm-hmm. muy Cheikh Hassan mm-hmm. te taxawu na taxaw bu macha allah. pays mm. bi am na mm. ci taxawaay bu rafet. Mm. ñu laaj suñu nijaay. Mm-hmm. tonton mm-hmm. Aliou. Mm-hmm. ñu bëggoon a xam gannaaw bi nga présenté woo ba pare muy sénégalais yi. nga wax ñu yow yaay kan. ñu bëggoon a xam kan mooy Cheikh Assane Dème. awuzu billahi mina shaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala saadiqi lwahdi l amin sayidina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man daa bi daawatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi din mbokki àdduna mbokki sénégal ak képp koo xam ne mu ngi seetaan si Salam TV ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell ñu ngi yokk islaam mooy salaamaaleykum wa rahmatullah waaye di jiital ci nuyoo boobu suñu xalifa xalifa saaxibul fayda moolaana cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu waaye di nuyu imaamul akbar imaamu cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé ñu ko nuyu buñ ko nuyoo nag nuyu neen mboolem pays bi yëpp ndax buñ nuyoo xalifa bi nuyu imaam bi rek nuyu neen ñëpp waaye di defar xaas nuyoo suñu xalifa ñun ci kër si xasan dem di cheikh mouhamadul kabir ibnu cheikh xasan dem radiallahu anhu ak rakam cheikh mouhamadul habib cheikh abdul baqi sayda fatima xasan dem mi nga xam ne mooy suñu mag waaye mooy suñu yaay ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp alhamdulilah di am mbégte ak bu baax ci eh, soxna xadijatu suñu jabaat eh, ci ànd salaam tv ñëw fii ci Medina Baye ci bés bu sell bi comme ni ko Seydil Hussein waxee te ma di ko nuyu di sama xarit di boom xam-xam di koo xam ne ala kulli xaalin yàlla dafa ne ko tawféex li ñu bind ci nasaraan jàng na ko li ñu bind ci diine jàng na ko doyal ko waaye nag li ma gën a yëm ci moom mooy lépp lu ci jikkooy daf ko jikkoo moom nag bokk ci ndaw si xasante mi eh, te mën naa wax bu bëri si càmm waaye di leen ndokkeel rek ci bis bi ngeen ñëw nga xam ne mooy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne yonent bi daf ñu waxoon ne taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaab allahi wa sunnati yonent bi daf ne woon bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne du ngeen réer mukk fekk yéen a ngi ci jàpp mooy ban mooy alquran ak sama sunna ala kulli xaalin boo ñëwee ci gàmm na nga fekk ne gàmm yëpp alquran la na nga fekk ne gàmm luñ koy defee kayit yëpp sunna la kon nag xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran bu doon dox la ndax moom jikkoom moo doon suma sëriñ Oustaz Aliou Ndao ñu ngi koy nuyu di ñaan yàlla mu yokk ko tawféex gis nga nit ñi dañu matee ci jikko yi nit am ay jikko yu kawe mat waaye jikko yi ñoom ci yonent bi lañu matee jikko bu jikko waaye jikko bi day mujj nekk jikko moom moo matal jikko yi waaye nit ñi ñooy matee ci ay jikkoom sallallahu alayhi wa sallam nday Aysa ne ko lan moo nekk jikko yonent bi mu ne kaana xulquhu quraan jikkoom moo nekkoon alquran kon nag ala kulli xaalin yonent bi alquran la ñu bàyyee kon nag buñ jàppee ci yonent bi jàpp ci ay jikkoom jàpp ci ay nettaleem ma ne mooy li ñu yonent bi waxoon ne moom la ñu bàyyee sunnaam mooy lan sunna mooy lan mooy li yonent bi def wala mu wax ko wala ñu def ko ci kanamam mu noppi ci loolu mun nañ koo wéyal mu nekk sunna loolu yëpp tey boo ñëwee ci gàmmu da nga ko fekk ndax dañu la nettali yonent bi sallallahu alayhi wa naka la ñu doxalee ni mu doon jikko wooye nu mu meloon ndaw ñi yonent bi nan la meloon ak mag ñi yonent bi nan la meloon ak ay noonam yonent bi nan la manoon ak ay ay soxnaam ci biir këram loolu ala kulli xaalin soo ko jàngatee su fekkee ndaw nga nga gis yonent bi relation mu amoon ak ndaw yi ak ni mu formé ay ndawam da nga gis ne ay ndaw yu baax danañ ko am su fekkee ne dañoo ñëw ci biir këram xool ni mu doon dundee ay soxnaam ak ni ay ni mu yaree woon ay soxnaam yow mi boom kër da nga mën a muñal say soxna da leen mën a amee ndax su boobaa ngeen am njaboot bu baax su mun doon defek ay noonam ndaa at na bi ñëpp am noonu ni mu la rafetal bi mu dem dem ci noonam su fekkee kenn ku ne rafetal la noonu jëmee ci ki nga xam ne mooy sa noon wala sax nit am na fu muy àgg sa dootu amati noonu waaye ci ñàkk déggoo su boobaa rek dina nekk dina nekk ci àdduna boo xam ne àdduna bu am jàmm la ñu nekk àdduna bu neex la ñu nekk àdduna bu siiw la nekk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla du ko yàlla waxee ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni wuñ la lu nga nekk yërmande ñeel ñu def yi yërmande googu nag agsi na ba ci kër yi agsi na ci xol yi agsi na ci njaboot gi kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax du leen ndokkeel bi leen yàlla may tawfeex ngi ñëw fii ci Medina nga xam ne Euh, Medina dëkk la boo xam ne mbooleem xeeti àdduna bi yëpp ñu ngi ci tey boo fi ñëwee rek mën ngaa wax ne yaa ngi Afrique wala sax mën ngaa wax àdduna bi yëpp dajee nañ fi ndax mbooleem xeet yi mbooleem nationalité yi ñu ngi fi dajee ñoom ñëpp utliwuñ daa lu njubu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat yonantu bi nit ñi dañ koy doon ci ñett ñii dañu doon ay waxam di ko jàllale ñii melokaanam ñii xaalam waaye Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass moom dafa waxoon ne taxaasuful ajwaaw sawqan wa magriban yubinul xuda filan wa xaalan wa dégg nga wa xaala yonent bi njubam dafay feeñ ci sama wax dafay feeñ ci sama xaal dafay feeñ ci sama jëf moo tax moom mu nekk ki nga xam ne mooy bokk ci ñi gën a mat ci ñi nga xam ne ñoo topp yonent bi moo tax ñun ñëpp tey ñëw jàngee si yonent bi ci moom ci ay waxam jàngee si ko ci xaalam waaye jàngee si ko tamit ci ay jëfam tey nag laaj nga laaj bu am solo mooy kan mooy Cheikh Hassan Dème lu am solo la pour daal jàng ko Thierno Hassan Dème waxtaanee ko radiyallahu anhu waxtaanee ko mooy waxtaanee mbaax waxtaanee Thierno Hassan Dème radiyallahu anhu mooy waxtaanee njub waxtaanee Thierno Hassan Dème radiyallahu anhu mooy waxtaanee bépp ngëneel ci metod bi mu toll rek maanaam ci ci waxtu wu mu toll rek ci Thierno ci ndawam ci njàngam. ci àndoom ak baay ci ginnaaw baay boo ci jàngat rek njëriñ la loo xam ne mën naa jëriñ àdduna bi yëpp Ceerno euh, Xasan Dem nag tukkuloo boo xam ne Fuuta la dëkk ci dëkk bi ñuy wax Sinju Dangde ñu ngi ci fuutal diggante Fuuta Sénégal ak Fuuta Mauritanie waaye ci Sénégal la bokk mu ngi juddu 1920 la juddu le 28 mars 1920 la juddu baayam mu ngi tudd Mouhamad Dem yaayam mi ngi tudd Faatimatu Kelli mi ngi judd ci famille wilaaya ñi ñi bokkal baay ñëpp ay waliwu leen ay borom xam-xam leen moo ñu sant dem nga xam ne famille bu yaatu la amut Sénégal rek boo demee ba Burkina ña fa sant dem ki nga xam ne mooy ba dem moo fa taxawaloon xeex fa ba taxawal du julli du taxawal fa lislaam kooku bokk la ci cawno bu jege boo demee ba Gaana ñi fa sant dem benn famille bi la waree na ba Nigéria ñu fa sant dem benn kon famille boo xam ne si yaatu ci Afrique la famille boo xam ne famille xam-xam la ci wàllu yaayam tamit loolu famille bi yéeme la mooy ñu sant kenn nga xam ne ñu nekk ci Fuuta si ziar bu mag amul benn sëriñ ci Fuuta luut ne jàng nga te fekk jàngee ci seen daara yooyu ndax ñoom ñoo nekkoon sëriñ bu Fuuta doon jàngale kon mu bokk juddoo fu baax waaye nag mu jéem a mbaax googu mu juddoo daf ko jéem a doon ba mu nekk ci moom Thierno Hassane dafa teel a dugg comme ni ngeen xamee ku bokk ci këru diine rek su juddoo ba toll ci waxtu juróomu at wala juróom-ñaari dañ koy dugal mu jàng alxuraan ñu dugal ko nijaayam moo ko jàngal alxuraan ba mu wëttu ko bi mu wëttoo moom Mawlaana si Xasan Dem alxuraan dafa dellusiwaat ci kër gi ci yaayam ak papaam Cerno yaayam amutoon doom bu jigéen moom seex la am na al Xuseyn ak al tamit mooy Cheikh Mouhamadou Kenni bi mu waatee ci kër gi comme yaayam amut doom bu góor doom bu jigéen bu mu ñëwee jàng alxuraan bu wottu mu ñëw rek toog di dimbale yaayam di ko liggéeyal en tant que góor di ko rootal di ko baleel di ko sooxal lépp loo xam ne bu amoon doom bu jigéen mu defal ko ko rek moom mu defal ko yaayam moo tax Thierno ngërmaane gi njëkk a am muy ngërmaane waajur et eh, gis soxna Khady eh, soxna Fat Bintou